ku xamut. Ah. mooy laaj ndax dossier bi dina dem du dem. Euh, li tax gars yi di tiit nii di wax bokk na ci mooy Juan Branco. Ah. dafay journaliste boo xamante ne bi dossier yu baree bari ci monde bi. avocat na ko. Hmm. waaw dafay avocat bu mag a mag. boo xam ne dossier yu bëri géré na ko. Hmm. mais aussi dossier bi daf ko monté noo xamante ne bii. Hmm. comme mbir mi su doon dem fii ak 30 ans. Ah. koo xam ne tuddoon nañ la ci dossier bi mën nañ laa tontu. waaw am na dossier yoo xam ne mën nañ ko monter noo xam ne dugalee ko noo xam ne mhm. am na fu may àgg nit ki kenn dootu ko mën a topp mhm. mais dossier bi mën na dem fii ak cent ans mhm. terewul képp kuñ ci tuddoon sa tur mën nañ la topp lu mel ni dossier criminel fii Sénégal rek bu dix ans ya ëppee jeex na waaw kay noonu la demee léegi nag mon noonu mu ko monté nga xam ne gars yi mën na yàq seen àdduna moo waral tey gars yi di rappi rappi ak di tiit ak di dal Mm-hmm. mais tey jii nii surul woon loolu gars yi du leen jaral loolu ah. mais boo gisee ñu ciy wax ak di waxaat te aussi mën na tas benn bokk yaakaar ndax li tax affaire bi dossier bi dossier bi dossier kenn ku nekk dafa laal sa intérêt bopp affaire cour pénale bi nag waa waa waa patriote yi danga ko gëm nag même euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy pouvoir bi yaa ngi naan mën na tas seen parti mais ministre force forces armées muy Sidiki Kaba dégg nañ lim ci waxoon aussi li daanaka jërul tax yóbbu. waaw mais mais yow. yow laay wax. waaw mais lu gën a garaaw. réew mi ñaat yoon la takk doo gis benn ministre bu génn. Mm. mais lan moo tax benn dossier simple su ndaw su leen mënta sonal. tax ñuy génn ñetti ministre premier ministre génn. ministre de l' intérieur génn. ministre de forces armées yow mas ngaa gis ministre de forces armées génn. Mm. intérieur sax d' accord. ministre porte-parole gouvernement. ñëpp génn. Mm-hmm. waa kon ñoom la leen génnee nekkut lu ndaw il faut ñu waxante dëgg. effectivement parce que li tax mooy. Mm-hmm. dossier boobu tey tey jii nii. Ah. kenn ku ci nekk mën na la indil jafe-jafe boo xamante ni bis mën na ñëw i bëgg la dugal ci tooxi doone da ngay lànk. parce que après lu lay topp la yow à vie. Mm-hmm. ban dossier tey dossier bii moo tax police nationale génn. def conférence de presse. ba nga yow ba nga dee sëñ Fallou ba léegi est-ce que mës nga gis. policiers yi génn def conférence de presse wala gendarmerie c'est la première fois. ndax mm. mm. mille vingt 2021 xew na fi ba génn. ba mm. jeex 14 morts am ci ndax gis nga police nationale génn. pour pourtant moo gënoon garaw presque xeex bu diire une semaine. mais lii suñu demee ba nee nañ dossier bu ndaw la dossier bu ñàkk fayda la. Juan Branco du du avocat bu mag. tey Juan Branco génnee leen mooy wane ne tiit nañ. te loolu xam lu ciy firnde. guerre 93 bi xewoon Rwanda. am na ci koo xamante ne bii maanaam tey liñ ko toppee woon mooy. Mhm. incitation à la haine. waaw maanaam ñi nga xamante ne bii ñooy xamb. waaw comme tey ñoom Xaadim Samb ñoom Moustapha Diakhaté li tax ñu tiit. Mhm. di wëlbatikuwaat seen wax. Mhm. naan waxuma loolu dañ ko déformé mooy man lañ leen toppee incitation à la haine maanaam ñi nga xam ne defuñu waaye ñoo xamb ñi def. waaw am na ku ko defoon 93 ci guerre Rwanda. Hmm. mais kooku actuellement nii la ko CPI di door a jàpp. jamono yi jamono yi. cour hmm. pénale internationale. waaw kon te loolu 93 la woon xoola 93 ba 2023. kon boo gisee gaa yi di tiit ay juriste lañ. ay hmm. borom xam-xam lañ. <laughs> xam nañ droit. xam nañ li tiit lan la xam na lu leen ci mën a fekk. kon mbir mi nekkut loo xam ne lu ndaw la comme ni ma ko waxee man bokkuma ci ñi nga xam ne damay toog. di wax noonu rek mais damay dem gëstu. damay mm. dem gëstu xool li may gëstu lan la. Mm. ñëw indil ko sénégalais yi. mu mm. nekk njariñ ci biir sénégalais yi. jël Juan Branco def ko comme si koo xam ne euh, daanaka euh, ku ñuy màggal daal euh, su waxee ñuy jël ay waxam di partager ay vidéo ay lenn lu ne est-ce que tamit mënuñu koo jàppee complexe ci ñoo xam ne daan nañ leen gis ñuy euh, wax ay France dégâts ak yu mel noonu est que complexe duggut ci diggante boobu. mënuñ ko jàppee complexe. Hmm. ndax dañu dem ba suñum réew. Ah. dañ fi ñàkk yaakaar ci justice bi. Ah. justice amatul ci biir réew mi. ñu dem ba tey réew mi kenn sañatul wax sa xalaat ni mu jaaroo ni mu waree. justice wax ngeen ne amul mais tamit mais tamit avocat ñàkkul ci réew mi. waaw may ma rek maa ngi ñëw. Ah. tey. lii nga xamante ne bii Juan Branco mu ngi koy def. Mm. jël dossier yi monté. yóbbu mm. yi bu ko benn avocat sénégalais defoon. ñu mm. tëj cabinet am. salfaañe ay àqam ak ay yelleefam. tey it dinañ ko mën a teg ay sanctions yu méttee méttee métti yoo xam ne mën na ko sonali ci. Ah. mais bu dee Juan Branco français la mënuñ ko. ñaata nit ñoo génn tey ci ay journalistes ñu di leen xoqatal. Ah. ñaata nit ñoo génn tey nekk ay. jeune yoo xamante ne bi ay marabu lañ ñu di leen xoqtal hmm. benn ci Cheikh Baara Ndiaye waaw benn ci Cheikh miñ mi ñu bëggee jàpp démb di député aussi hmm. ñoom seex Omar Bamba Diop hmm. ak sëñ Assane Mbacke ñaata nit amul benn millier booy dugg ci Sénégal kuy ñëw di wax xalaatam di wax dëgg te duñ la jàpp tëj moo waral ñoom avocat yi porté wuñ combat boobu te kii ko porté muy Juan Branco dafa nekk am influence ci monde bi ndax tey Juan Branco sénégalais yu bari xamuñu ko Juan Branco ku influent la mooy jeune mooy tey muy jeune avocat boo xam ne France ci ñi fa gën a influent mm. gën fa xarañ la bokk. mais mm. bu ñu fàttali ko Mame Mbaye Niang jëloon na avocat français lu tax kenn xamu ko parce que influent wul kon mm. affaire bi influent bi ci la bokk te léegi lu ci am solo la kon jàpp naa ne jàpp naa ne jàpp naa ne du question de du question de Juan Branco dañuy màggal ay waxam waaye dafa ñëw di yëkk jël xam-xam di wax dëgg feetee dëgg hmm. ci sénégalais foo xamante ne bii waa sénégal gii la waroon waaye ñu gis ne justice amatu fi ñu ne nañ dem te justice bi gën a rëy hmm. muy tribunal de la Haye gën a màgg ñu yóbbu fa li nga xamante ne moo di état du Sénégal hmm. ndax état du Sénégal amul kenn ku nekk ci réew mi ku leen mënal dara ñoo yor seen justice boo demoon porte leen plainte justice bii du mujj fenn Sonko ñaata ñaata porte plainte la def ñaata nit la yóbbu euh, la yóbbu ci yoon est gisagum nga benn yoon ñu def ci ay kii. Hmm. kon dañoo dem ba sénégalais ñàkk yaakaar ci justice Sénégal tax ñu ne nañ dem nag te justice ba gën kawe muy cour pénal international. Hmm. noo gisee déclaration Ousmane Sonko démb nee na moom génnul ngir wax ci politique waaye li mu wax tamit soriwul ak politique de daanaka euh, euh, cokaas na daal wax na ay tooñ yuñ koy tooñ ak yu mel noonu donte ke jubalewu ko ci borom wër-wëral na ko ba noo gisee déclaration démb bi. déclaration bi ni ma ko gisee mooy ko xelam dal. waaw mooy koo xamante ne bii dafa mel ne dañ ko doon bëgg a lor waaye dañ ko faf sax di ko jariñ hmm. ndax benn mooy Ousmane Sonko tëj bii ñu ko tëj këram barikaate ko. Ah. moom waxul mais ñaari nit koy waxal ci monde bi. tubaab yi di ci teg seen bët. Hmm. xam na lii ñi ngi salfaañe ay àqam ak yelleefam. Hmm. kon loolu atu la ci moom. Ah. Euh, beneen bi mooy. Ousmane Sonko noppaluwul woon. démb ku ko hmm. xool xam ne kii noppalu na. Ah. nga xam ne am na yaram. Hmm. ñaareel bi Ousmane Sonko dina ko permettre tey même euh, mémorandum boobu mu bind génnee ko. waaw ah. mais bi mu bi ko tëjee nii ci la ko mën a bind génnee ko. effectivement est-ce que buñ ko tëjul woon dina ko man kon Ousmane Sonko jàpp naa ne tëj bii ñu ko barricade sax. Hmm. jàpp naa ne dañ ko gën a dimbali. mais loruñu ko may nañ ko mu noppalu. may nañ ko mu xalaat da nga la ci ñi ko def daal. loolu laa jàpp. may nañ ko mu xalaat. may ah. nañ ko mu noppalu may nañ ko mu bind génnee mm-hmm. te tey ji ku démb dé ku dégg démb ni mu waxee mm-hmm. xam géopolitique mondiale mm-hmm. xam ne Sonko tey xelam dal na te ni mu waxee mooy lan mooy lan wax na li weesu ci li fi xewoon ah. wax li présent waaye wax ci ëllëgam ci ëllëgam bi mooy bu tabaski ki weesoo bañ amuk dal dina ñëw waxaat ñu mais loolu nag mu ngi aju ci discours président de la république Macky Sall am na ñu doon wax ne ay rumeur yu daan daw ñu naan dañu bëgg a bàyyi ba nit ñi tabaski ji ñu dem jàpp ji ko yooyu noonu mais bu jéggee ci li mu waxee démb nee na na ñëpp dem euh, tabaski ji feetu ak seen ay famille bu leen kenn euh, stressé bu leen kenn indil loo xam ne daal ay gëm-gëm yu yu yu amul la yow jàpp nga ne wala comme li ngay wax naan day am information yoo xam ne nii yow da nga jàpp ne dafa am ay garantie que ni euh, dara du ko ci fekk daal. waaye ku baax. koo xamante ni bi dañ ne condamné nañ la deux ans ah. ñetti fan réew mi taxaw. Hmm. waaw kooku buñ ko tëjee fu réew mi jëm. Eh, dañu gis nga ñiy wax loolu peut-être dañu xamul. Hmm. benn affaire dañ ko war a xam. Ah. kan mais Ousmane Sonko ñoom ñi ko barricadé. bu leen ah. neexoon tëdd ba guddi jël ko yóbbu. kon loolu jarul ñuy xaar bisu tabaski ginnaaw suba la tabaski. Hmm. wala nit ñi buñ tabaskee dañ dul dellusiwaat. ah mais buñ tabaskee nag absence day am. waa mais buñ demee duñ ñëwaat. mais dina fekk est-ce du fekk c'est trop tard. non c'est pas trop tard. Hmm. Sonko dama lay wax benn affaire. Ah. jamono ji ñu toll. Hmm. amul kenn ku ñemee fekk Sonko fa mu ne ne da koy jàpp tëji kaso. loolu hmm. amul. kon d'abord ñiy xalaat loolu mais ñiy xalaat loolu waxu démb Sonko bi weddi na loolu. parce que ah. moom su ñëwee ah. kon. xam ne dañ koy jàpp. Sonko waxut sax ci loolu. kon Sonko weddi na loolu. loolu yéen patriotes damay dalal seen xel. bu ngeen nelawee na ngeen yàndoor te xam ne Sonko kenn ñemewu ko fekk fu mu ne. ne da koy jàpp. Hmm. loolu ku koy wax rek peut-être gëstuwoo politique wala xamoo xamoo dëgg-dëgg lan mooy politique. Hmm. tey état du Sénégal bu buggee jàpp Sonko tëj ko. lu hmm. ko yomb la mooy sàcc ndënd yomb na waaye foo koy tëggee jafe. bu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy question troisième mandat troisième interpellé nañ ci Macky Sall ñu ci bari waxoon nañ ne bu ñu demee ci dialogue ba pare dina leer waaye boobu ba léegi dara leeragu ci tey boo doon jàngat euh, li nga xam ne mooy euh, Macky Sall réaction bi mujjee def mel na ni ku ko sobantal daal ay euh, dinaa def ñaari mandat yooyu waxu ci lu leer naan ne après dinañ ci wax très bientôt buñ